هق البكاء على سادات أمواتي تبكي الأراضي عليهم كالسماوات هق البكاء على سادات أموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات إنا الله هنا إليه رجعون siyaare ñëpp di di jaale ñëpp sàng ba suuf yóbbu ku tedd ku baax ku jàmbaare ka seen seen seen Abbas moom maam Cerno moom moom doonoon xalifaam bi xaalihi wa maqaamihi ka kama narju moom moom

te doo ab suuf yi ñu ngi lay ñu ngi lay jaaree sax bokkum sufanke ma ko am solo la mas naa mas naa ko wax ci état yi nga jëf booba wàcc waaye ba bañ ko jox sax booba des naa ak man ma woos bëgg tari bi ñu leen ñu leen nañ dajale jox ko addiya ñu ko jox ko addiya ma ne ko ñu ne waa njëkk njëkk lañ waaw moom de sama xarit la mu ne ko bëgg nga ñaanal ma eh, ak njub mu ne ma mat na ko de mat na ko de boo ñibbisee dina boo ñëwee Sénégal di ko wax sama bàyyi mu ne ma ma waaw ko ko nar jiite mbooloo mi da daa war war ba xam mbooloo mi daan teg waaw wax kon dafa xaw a kii waaye nam ko waxe woon rek toog na ci ci xilaafa ak ak yitte ju ju xawee jeex suuf yankee yaakaar naa ñooñu ko ko doon ñàkk war ma di di moom laal bari yaakaar naa mujj na xalif yi mu gi yëpp di ko warmaal di ko raamoo kooka kon mooy suuf yi ko teg jël adduna nag teg ko ci ginnaawam daal di dëgmal boromam kooku mooy si si si demoon nañ ca duggoo ba barkeel bi am na ca yàlla defal mën rek na rek daal di taxawal loolu di tawfeex lool waaw ko a jàngal di xalaasee eh, lim bu bari bari gën ca doole gi ñoom suñu jeex naa waxoon it Faatiha ayatul kursi Ixlaas Falaq Naas si benn bu dee ñetti yett yéene ko ku yor ba yéene ko bàyyi mu tëdd ba maam Cerno magam yi ko jiitu woon kooku daal moom mooy as-suufi yu al-muxadram nga xam ne daa jugte woon maanaam moom soo ak tuutànk lay jugte woon ba lépp tegu ci loxoom. yàlla nañ ko sun sun boom fayal ngën ji pay luy def la de luy def tig la de yaakaar naa bu bu demee ca bàyyam ba de dana siggi dana siggi dana siggi dana siggi bu gisee sëñ sëñ ci xadi magam ju tëdd jooju dana siggi gisee sëñ abdu xudus magam ju tëdd ji dana siggi gisee sëñ ci xaw bàll sëñ xaw bàll ñooñee sëñ wut xabib ñoom ñëpp rek bu leen bu leen gisee dana sikki yàlla na ko suñu boom yéegal te ma xama bàyyam la mën na ko commencé ak kanam as yàlla na ko yàlla wane rek ci guddi gi ak maam Thierno ba Cheikh Abdou Khadim ci kër ba saxib Mouhamadi Sharif mahabarat al kiram jasaahu llahu anna xayra jasaa wala tufitina ya rab baxdahu wala taxrimna ajra bi ma si la ilaha illa musa sa su si isma alga ne leew ni هقى البكاء على سادات أمواتي تبكي الأراضي عليهم كالسماوات هقى البكاء على سادات أموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات